ni ko ceer na sunu yoon wi dafa mel ni tey lay firndewu waaye sëriñ Basiiru yëf yi du hasard ndax dafa am benn magum taalibe mu xoromu kero bi nga xamante ni sëriñ yebal na maam Ceerno 1912 mu gor Daaru Musti taalibe bu mag boobee dafa ree mu ne bisimilaay jàmm ndekete yëf yi mbokk ci la ndax diggante Mbàkke Kajoor ak Bawol ak Kajoor fa tubaarakalaaw loolu liggéeyub Ceerno rekk fi xaj Sëriñ Basiiru ak mbokk a ngi ci ndax Maxtaar Ndumbe Moodu Faa Xuja njagay sa xarimaam xarimaam mooy waajuru mi Aminata Lo muy waajur Cheikh mu ak Cheikh Mamadou Lamine Baara mu bokkaat ak no fa tubarakallaahu njaga isa mi nga xamante ni Modou Fada Modou Fakou Dia ko jur mu jur Fati isa mu jur no mu jur Serigne Abbas mi nga xamante ni mooy yebal délégation bu mag bu rëy bii délégation boobu nag Serigne Basirou kii bëgg a wax kenn la ci doyoon na sëkk délégation ndax ki ñu fiy ki ñu fiy gërëm léegi ma ne ci formation la ndax kenn ku ne xam na ni alaaji Amadou Samb waaye alaaji Amadou Samb itam kenn ku nekk xam na ni ci suufu Serigne Modou Kara Nourou indi la te it Serigne Modou Balla moo leen boole woon kon coow li coow li ceernoo moo tax su ma ko mayee ma liir délégation bi wala mu def déclaration ba noppi ma door lim délégation bi nga xamante ni moo jur moo jógee ci kër sëñ Abbas waaw kon def nañ noonu kon ñi ngi jox kàddu gi ki nga xamante ni mooy généralu Bamba ki nga xamante ni bu cooli cooli tàngi sëriñ Modou Kara ki nga xamante ni mooy dimbali nit ñi ñépp ca fa tubarakalaw kenn ku nekk la nga am yéene ne la ko kon kooku mooy sëriñ Modou Kara Noreyni mais diwaan bi diwaan bi diwaan bi aywa jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul lawal wujudu lazi xad zaanahu xidam maal baxaay wa xayru laahi dullasi xad zaana xooxi ku ma soppal xaadim jóg leen taxaw maaxal baaxa i waxay ay waay rullaah nee leen jaajëf borom tuubaan jërëjëfe borom loolu dafa yëngal aras ne leen borom Tuuba nee naanu borom ku soppal xaadim jóg leen taxaw ne borom Tuuba jërëjëfe borom